léegi ñu dem ba ci jamono juif yi 1914 ñu dajee def benn pierre teg ko ba pare indi seen hadaf seen ahdaf yi nga xamante ne moom lañ bëgg a songee musulman yi tas leen wàññi leen wàññi na leen mënoo leen wàññi jullit yi mënoo leen leen wàññi mënoo leen areeloo islam fekk alquran mu ngi seen biir ñu koy mokkal te comprendre ñu ko sax ñuy daje kaaba seen daje yooyu ñuy def fekk ñu ngi koy def parce que xam nañ ne daje yooyu si la ñuy tëbboon de ñuy maasante da ngay dem ci kër sëriñ bi ngeen wasi fa ñibbi rek leer na la yow miy ñibbi bokkul ki doon ñëw tubaab yi dañu kaa bëgg a xañ gàmmu am ñun ñëpp ñu dem Madina ñëw beesaat ñun ñëpp tàkk añ am jullit yi aji ñëw beesaat tàkk mu ne fépp ñu ngi daje seen daje yi mënoo leen waaj fépp ka alquran bañ seen biir xale yi di ko mokkal te leer gi ne ci kër yi ñu ne léegi nu ñuy def pour yàq leen kon bàyyi gis moo indi solution waa ji topp ci yàgg mu ne sarxiluhum bil musiqa wa ajati al i'lam imposé leen jox leen ndaw ñi musique ak média bi mooy supportu média yi jegeel leen média ak musique gis nga yàgg na télévision xoolal média ak musique ni mu yàqee askan bi seetlu leen loolu pour dama wax lii pour indi Baye Niass lan la ci wax léegi musique bi tey xool leen compte YouTube yi ku la ëpp euh, euh, ay nombre de vues yaay ëpp xaalis loolu franc-maçon yee ko def pour jeunesse bi ñëpp ñu yóbbu leen ci caaxaan man damay am def ay waxtaan mais waxtaan bu ma nii mooy ëpp nombre de vie parce que ay saytaane lañ bëgguñ ma wax lu baax waaye waxtaan bu mu wax ci xam-xam wax ay norme teg ay tuuti nombre de vie tuuti bu fekkee ne man damaa topp nombre de vie léegi ay non sens rek laay wax ay waxu caaxaan rek laay wax moo tax la ngay gis oustaz yu fi wax ay waxi caaxaan ay jigéen ay nangam yu ñàkk fayda yooyu bëgguñ ko sax tudd ñoo ñooy ëpp nombre de vie oustaz yi wax ay palaane fii reetaan loo nit ñi ñoo ëpp nombre de vie boo yi nekk fi affaire caaxaan ak jigéen ñi wax waxu saay saay yi gën a garaaw ñoo ëpp nombre de vie loolu franc-maçon yi ñoo ko fi teg sarriluhum bil musiqa wa ajrat al i'lam lan ñu ñàkkaloo jom jeunesse musulman bi lépp lu bon lu ñu làqoon ñi koy génne ñoo ëpp nombre de vie pour lan nañu banaliser bon pour ñi nekk ci mbon sax gis ne ñoom dafa dara mais loolu loolu bi la ah léegi lii tax lu tax ma wax leen ko lan la ci bàyyi indi yeneen jeunesse ak faydu léegi faydu lan la leen indil ci loolu moo tax ma nga gis ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yoo xamante ne jeunesse bi yëpp tey ñu ci nekk musique bi xool leen jigéen yi da gis jigéen yuy futteeku ren léegi rek mag sëriñ bi tey ñu ngi gis lu nañ ko wax ay jigéen yoo xamante ne da leen di jëndal crédit tigo ñu summeeku ba set wala wala sa bopp crédit rek ngay jënd ñu summi billaahi wallaahi tallaahi ñu summi xoolal loolu ñu summeeku ba set di la woon seen awra loolu lu danger la te vidéo yooyu ëpp nombre de vues waajaani ci mbon ba pare mbon di ko may alal di dul jeex boo yëpp a pare see léegi boo yëpp kenn liggéeyatul kenn jàngatul kenn utatul ci nekk sa di ut sa ordinateur bi ñu di fenn rek di sànni ci youtube bi jaaxaan am xaalis loolu du islam yonent bi daan na wax ne julit na nga kaf waaye bul wax lu dul dëgg bàyyi nee na wax lu dul dëgg daf ñuy teg la ne doo wali yàlla léegi taalibe bàyyi bokkuñ ci loolu nañ sax nañ waxante wax lu dul dëgg day wàññi sa wilaayatu bu yàggee da koy rongé ba mu jeex ñu puus la ci wax lu dul dëgg pour nga am nombre de biir pour fayee ko ay millions. jullit bu jigéen ak bu góor dafa war a nëbb awraam ñu may la ngay wane sa awra di am nombre de vie pour am alal di dul jeex moo tax boo yëg tayal lañ léegi Sénégal kenn jàngatul kenn utalul métier di am alal di dul jeex fan lañ ko jëlee ci ñàkk jom gi lañ ko jëlee. loolu nag 74 la ko tubaab yi waxoon ne fii léegi 2020 bëgg nañu islam àgg fii jigéen ñi buñ amati doom. planning bi na ñëw bu njaalo gi na bëri doom du am booy bu booy yu njëkk yi soo waxoon ne sañu ma ko éy buñ ma bu fi biiree génne réew mi moo tax dana rey ba du joxe boppam parce que dañ koy génne réew mi léegi nag war nañ la ay misaal yooyu def ba doo ëmb musiba la bu dee góor war nañ la loo def ba doo ëmb doo ëmbal musiba la te faydu day ñëw nag sa bakkan bii ba cax kay jigéen mooy dëñ ci yow bàyyi loolu la wax bàyyi mu ne sama xale yi ñu ne ko ñan la mu ne faydu bi ñu ne ko mooy ñan mu ne ñoo xamante ñi ci am jabar sax dañuy fàtte jigéen kon xam nga ne bu leen bàyyi téye ba bàyyi leen ah wallaay doo bok bokk ci ci ci ci ci ci ci mos yu yu bon yi ngeen di gis ci tere bi góor ak de vie soxla wuñ ko man benn waaye wax na ma ne sëriñ bi sa nombre de vie bi ma ci gis bi gën tuuti war ngaa mën a ko 5 millions jëm kaw ma ko bàyyi may jox 5 millions bi ci côté ma de vie ma ne ko te mosuma dugal sama vidéo mosuma préparé waxtaan ma ne ko topp ma nombre boobu yi parce que boo ko toppee da nga dem ba mujj gi million yooyu dugg dana la dugal ci tooñ ay nit wala wax lu dul dëgg wala sosal Cheikh Ibrahima Niass wala bu yàggee sax dootoo sax faale baay yow lu lay may nombre de vie rek ngay def te loolu yëpp mu ngi fi yeneen i jeunesse ak faydu bi lii yëpp mu ngi fi yeneen ci teg ba léegi nag lépp loo leen bëgg a def tàppe leen Google mu wax leen lan te loolu mu xaddam bu nekk war nay tàppe google tamit di xam li xew parce que yaa yor jeunesse bi war a xam li nga leen di wax war mu xaddam bu nekk war nay seetaan dégg nga internet di xool bu boîte yi de seetaan sabar yi ay ràcceeg lépp dee ko seetaan parce que lépp ci télé la nekk boo amul jot télé am nga tablette bu guddi jotee taalal sa tablette nga xam li jeunesse bi nekk parce que bàyyi da leen a dénk nga war a dindi ci ñoom def ci ñoom boo xamul ci liñ nekk la lu dul ñu ñëw jox la xaalis dem kañ ngay defar ndaw ñi kañ la ñuy defar taalibe yi